am 4000 euh, millions plutôt 4000 euh, euh, milliards am na solo mais li ko gën a am solo mooy la redistribution de la richesse et c'est la où le bât foofu ngay gis ni ah doxul parce que jusqu'à présent am nañu 4000 mosuñu ko am ba léegi c'est la première fois ñu am 4000 et quelques 4500 milliards mais taxul ñu am 500 jeunes yu jël le large di rey seen bopp di des donc dans les océans te pandémie bi pendant un an li mu rey ci nit c'est environ trois cent lële en moins de un mois deux mois ñu compter presque cinq cent personnes te ñii di dem mooy ñoo xam ne ñoom ñoo choisir dem ça veut dire ce que ça veut li muy tekki mooy awma idéal de vie amatuma benn espoir te c'est pas simplement une question d'emploi c'est pas simplement une question économique c'est simplement une question d'idéal de vie mooy gisatuma repère xamatuma dara te soo xoolee li xew fan yëlee ci remaniement et cetera kenn comprendre tul kenn gisatul valeur yoo xam ni ça te rassure te nag nit nag su dee sa doom yaa ngi tiit pour ëllëgam nu mu nar a demee te jar na tiit parce que xamoo ci loxo kan lay nekk ak lii xew et cetera su dee kilifa yoo xam ne ñoo ŋànk mbir bi am na loo xam ni comportement ak attitude doy na waar euh, soxna si day day day day garaaw te li gis nii ci wàllu budget bi wax dëgg yàlla euh, bëggoon naa trop trop trop ñu dépolitiser ko ñu bañ a nekk encore dans une logique de fast track bañ nekk dans une logique de gis leen ma et bañ a nekk dans une logique électoraliste parce que lu bëri ci xaalis gi ñu joxe Sénégal il faut ñu yeewu ku ñuy jox ay cinq cent 500000 pour ne dañ la financer ku ñuy ku ñuy defal lu tuuti nga kontaan parce que mosoo ko am wante am na li ko gën am na li ko gën actuellement donc tout l'argent bu ñuy mettre donc euh, euh, dans les circuits. ne finance pas l'économie, mais finance généralement de potentiels électeurs. Donc la nuance est importante, war nañu def attention. En tant que euh, pionnier sur euh, l'éducation, sur euh, l'éducation professionnelle au Sénégal, tey nga toog dégg ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diallo ne le problème des jeunes qui vont à l'immigration éducation moo ko la lan moo ci sa interprétation sa gis-gis. waaw éducation il a raison. mais euh, xawma ma ce qu'il entend par éducation parce que éducation ak formation du benn waaw éducation euh, nit mën na bañ am dem école ba am bañ am lijaasa wante ñu éduquer ko te éduquer ki ñu di éduquer mooy kilifa éduquer mooy leader euh, le footballeur dans son coin mën na éduquer sakkatumaak nag ñoo xam ni ñoom ñooy ministre yeeg ñoom ñooy gouvernement donc aujourd'hui le problème d'éducation bi ma doon wax sànq mooy si ils ne sont pas inspirés par le gouvernement, s'ils ne sont pas inspirés par le chef de l'État, s'ils ne sont pas inspirés par la société civile, ils ne sont pas inspirés par la classe maraboutique, il y a un problème. Et aujourd'hui, c'est là toute la difficulté. Moi, société civile, waxatul euh, marabu yi am na nu ñu toogee euh, nga xool politique yi c'est grave bon la preuve mooy li xew fan yële ah, soxna si kat euh, réew mi garaaw na kon mbir bi du mbirum 4000. milliards mbir bi mooy mbirum idéal de vie donc un budget une économie un gouvernement un état qui doit être au service d'une nation et malheureusement il y a une déconnexion entre les besoins profonds de cette nation cet idéal ce sens que nous donnons à notre vie ou que nous voulons donner à notre vie et ce que nous sommes en train de vivre et de voir donc nañu bàyyi pukkare bi nañu bàyyi les dépenses de prestige nañu nekk dans le vrai et le vrai c'est que les gens ne s'en sortent pas. Le vrai, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Le vrai, c'est que euh, euh, tout est politisé. Vraiment, tout est politisé. Euh, quand tu ne dis pas vivement qui, tu n'es pas là-dedans. Quand tu n'es pas à pair, tu n'es pas là-dedans. C'est un problème. C'est un problème, c'est un problème. Et vraiment, je profite de l'occasion de tribune pour ne maki ne politique, ne politique, ne politiser et qu'il soit un véritable chef d'État. Nous ouf, nous yep, wah. et qu'il ne, ne soit pas obligé de indi nit ci dans le gouvernement na bàyyi ku nekk jouer rôle am que les opposants jouent leur rôle et c'est comme cela que la démocratie aura ses espaces de respiration et c'est comme ça qu'on peut bâtir une nation mais ku wax nga jënd ko ku wax nga indi ko ku wax nga toroxal ko loolu tabaxul réew tabaxul dëkk te ñii nekk ak moom sax dans la paire ñoom seen bopp ñoom ñoo njëkk seexlu loo xam ne actuellement mi ngi dox même ñu wax ko ko bañ ko ko wax donc aujourd'hui le pays a besoin de retrouver ses fondamentaux donc budget mais un budget qui s'appuie sur les fondamentaux sur nos convictions sur nos valeurs